Euh, quand il était question de seen camarades yu nekk Thiès euh, vous les aviez entendus euh, après il y a eu Alioune Badara Cissé boobu moom moom da nga déglu woon. audition non non moom entendre. kenn entendre leen ko mais te prononcé woon itam benn sanction. si. mooy dinañ ko dàq si si si ci scène bi voilà mais man li ma jaaxal mooy bu bu Moustapha Diakhaté bi mooy <coughs> d'abord yéen la ngeen ko reproché parce que gis naa ci ci kii bi euh, seen communiqué bi ngeen bind ne ay pro propos euh, <laughs> mm-hmm. propos yu doy waar xam seen communiqué dafa bëri faute nag Benoît loolu d'accord nga ko nangu nga nangul na dafa bëri euh, xëy na y a énormément de sources de communication. c'est damay wax dañuy waxante dëgg xëy na war nañ gën a góorgóorlu. Mm-hmm. bu ñuy bind ay loo xam ne dañ koy jëmale ci nit ñi. waaw ñu def effort. dëgg dëgg ñu moytu euh, euh, yenn gàq gàq yi di ci am mais loolu day am parce que booy bind non. defal naa ko nag yéen nag loolu seen baax la seen baax la nga yow journaliste nga. Mm-hmm. bind ci pression moo dangereux. Mm-hmm. waaw ah, baaxul. da ngay gis journaliste sax même ils se font relire mais da ngay gis faute ci ci journal bi. bind sous pression dafa baaxul. Mhm. moo tax souvent dañuy wax nit ñi ah, bu ñuy bind qui s'entoure de toutes les garanties. ki mhm. ñu jël temps relire et cetera et cetera donc loolu ñu ngi ciy jéggalu. Mhm. bon il faut ñu def ci ay effort mais euh, du loolu moo am solo. li am solo mooy continue bi euh, di wax ne d'abord damay def précision. man ñëwuma pour tonton ak Moustapha. Mm-hmm. d' abord du sama habitude. Mm-hmm. di tonton teg nit ñi ci ci presse interposée rawatina li nga xam ne moo jëm suñu parti. Mm-hmm. te moom fu mu ne nii bokkatul ci parti bi donc man du ma ko tontu. li am solo mooy moom bu dee jàpp na ni am na loo xam ne d' accord ci. ci li nga xam ne moom la commission bi dogalee wala article yi mu visé. am na possibilité def recours. recours devant le conseil national. mais ah lii ak lii ak lii def nañ ko euh, jàpp naa ni euh, tegul ci yoon. Mhm. bu boobaa mais beneen instance dina réunir muy conseil national bi euh, seytu affaire bi joxe joxe joxe joxe décision. Mhm. Ah, pour le moment nag je crois que moom fas yéene wu ko def. dana mhm. xëy na foog naa dégg na du ko def. Mhm. donc bokkatul ci parti bi donc amul sax pour wax ndax li ñuy parti bi jaar na nii wala parti bi jaar na nii parce que moom bokkatu ci. Mhm. donc je crois que mais li am solo mooy nit ñi xam. parce que dafa am importance ñun ñoo yor parti ñoo yor APR yor nekk ci pouvoir bi lu ñuy def yëpp dafa war a ànd ak euh, rassurer population yi day rassurer militants yi. Mhm. et que euh, la ñu def yëpp ci yoon lañ ko teg ci yoon lañ ko teg parce que dañoo constater. ne euh, ay weeri weeri ngi nii wax dëgg yàlla ah sénégalais yépp gis nañ ne ah, am na taxawaay boo xam ne méngoowul ak lii nga xam ne moom la parti bi digle lii nga xam ne moom la jiit parti bi digle lii nga xam ne moom lañ jàpp ni mooy euh, yoon bu ñu teg pour euh, ànd ak président de la république jàppale ko ci liggéey bi nga sénégalais yi dénk euh, mu war a réaliser ay objectifs yu ci ay objectifs yu important yi nga xam ne moom moo tax ñu delloo ko donc ci ci ci bopp réew mi alors loolu bu amee mu mel ni da nga jóg pour yàq. bu ñu constaté ni nag dafa am nu ngay doxalee loo xam ne jóg pour yàq la. Mm-hmm. ah parti for war a jóg xam nga ay satu <coughs> sénégalais li wax toujours démocratie. Mm-hmm. démocratie c'est vrai. mais dañuy confondre souvent démocratie ak indiscipline. réew mi dañu jàpp ni euh, ku nekk lu la neex ngay wax ak fu nañ nga koy waxee. ay su mën xam luñ ma jàngal. Euh, waroo waxee fu ne. Mm-hmm. waroo waxee nooy. Mm-hmm. lu nekk dafa am foo ko war a waxee. Mm-hmm. déggam donte sax am nga lu la naxari mm-hmm. war ngaa am foo ko mën a waxee mm-hmm. war ngaa mën a tam xaar ba fu nga waxee jot mm-hmm. parce que mën nga am li nga bëgg a wax ah doo am occasion wax ko wala amagoo foo koy waxee da ngay am patience loolu mooy tax ñu ràññee la ah jàpp ni yow kilifa nga wala mat nga kilifa wala am waaye lu xew nga yóbbu ko ci mbedd mi mu mel ni nga yor sa kër yor sa jabar yor sa njaboot lu ne tël ci ci kër gi sa jabar génn wax ko wala say doom wax ko bu boobaa yow boroom kër gi di nga xat ci kër gi mm-hmm. donc loolu dañ ci war a jàngee te du exemple bu ñuy won bu ñuy won suñu jeunesse du exemple bu rafet bu ñuy won donc suñuy militant ak suñuy population mm-hmm. d'accord que surtout damay fàttali ni toujours ku nekk ci opposition sa taxawaay ak ki nekk ci pouvoir sa taxawaay dafa war a wuute boo nekkee ci opposition da ngay yëngu pour ñu ràññee la maanaam souvent da def bruit mais boo nekkee ci pouvoir dangay rassure ñun dañu am retard ci suñu développement dañu am yu bëri yu ñu war a xoolal àddina bi tey réew yu gën nekk ci kanam Chine lu ko def puissance lan moo ko def puissance économique mhm. discipline rigueur tey Russie lan moo ko indiwaat ci kanamu àddina euh, euh, euh, bi. discipline rigueur. donc ñun sénégalais pour lan ñu ñu bëgg suñu réew bëgg dem war a dem kanam. ñu bëgg suñu réew koom-koom bi taxaw ñu bëgg suñu réew xale yi liggéey ñu bëgg ñu ràññee ñu te ñun ñu jàpp ne lu ñu neex la ñu war a def lu neex la ñuy waxee lu ñu neex la ñuy doxalee ñu jàpp ne loolu mooy démocratie loolu du démocratie. ma ma dellusiwaat ba tey Benoît ci seen. Euh, conseil de discipline boobu. <laughs> encore ah, encore pareegu ma ci ndax xam dama la bàyyi nga développé pareegu ma ci man <laughs> wax nga man maay wax ndax euh, li li li choqué quand même opinion bi jaaxal leen mooy. Euh, ñun dañu xam en tout cas li ñu xam ci parti politique yi xam nga tamit ci dëgg-dëgg mbooloo bu fa amee koo xam ne mer na di génn euh, di wax wala muy def noo xam ne yéen ña mu bokkal euh, mbooloo ma dañ jàpp ne na mu koy defee euh, naka su dul noonu la mooy d'abord ngeen artu ko mooy commission boobu war a def avertissement blaame ko Euh, suspendre ko wala nangam exclusion da muy dàq dafa nekk lu rëy loo xam ne euh, dëgg-dëgg du luy jël à la légère du luy jël sous le coup de la colère ba pare wax nga ko sànq am na ay illustres devanciers moom Moustapha Diakhaté euh, ku ci mel ne Alioune Badara Cissé à l'époque ba mu ko defee yéen lu ngeen def mooy génneel ko ci seen secrétariat exécutif national ba ngeen def foofu ngeen la génneel Moustapha Diakhaté fa la bokkoon pourquoi def leen la même chose que moom ba tey Euh, gis nañ ne du Moustapha sax Jaxate dong bu dee euh, wax loo xam ne nii dëgg-dëgg sénégalais yi euh, neex na wala neexu leen loolu c'est selon mais bu dee rek critiquer seen parti bi ak na muy doxee nu muy nàngam wala ba am ay comportement yoo xam ne irrévérencieux la dëgg-dëgg pëjom ba du moom donc moo fa yéeg bërki dee mooy njaay mattante yaa xam may Euh, far ba Ngom ak euh, euh, ñoom Cissolo ñii dégguñu commission ba foofu kenn xamul ne commission de discipline am na APR da ngeen a pat noppi pat tuus ngeen def ñu ñu ñuy weerante géej di sànnante lu leen yàqante ko weerante lu leen ñu wax ko waxu leen xëy nag suba Moustapha Diakhaté mii ngeen tongal ko tong tongal ko may leen ko benn chance vous vous en fait Moustapha Diakhaté vous lui avez ne lui avez laissé chance moom pourquoi la pourquoi ngeen ngeen ngeen ngeen précipité ko rek rend ko noonu mu euh, euh, jàllale ko mu dem sacrifié mu dem. ñëpp ràññee nañ ci président Macky Sall. nit bu dal. président d'ailleurs des fois da ngay dem sax ba mete ko parce que dafa am patience. te gis nit muy def dara muy def dara muy wax ak yow di yónnee ci yow. pour nga ànd ak dal pour nga ànd ak tey ba nga dem ba foog ne sax kii dafa am faiblesse. Hmm. donc loolu mun ñoo wax ne euh, président buy buy buy jël décision da koy jël à la lu muy xalaat la. mais pourquoi bii nii mu mu mu décision bi. Euh, gaawul de. ba mu commencé moom lu muy def yàgg na. mais yéen a ngi ne woon moom Moustapha Diakhaté c'est auto exclu. waaw defal daal pourquoi kon ngeen xaar ñu. waaw dama moom lu muy def. Mm. yàgg na ci. waaw moo wax ñeneen. ñeneen ñooñu dañu amandé mm. dañu amandé si Cissé dafa amandé ah président Soro il s'est recevoir na ko. ba mu déggee dégg ngeen lu mu wax ba mu génnee dégg na lu mu wax. maa ngi tudd maa ngi daal genre. Euh, moom mii ci boppam euh, war yor yee nag ñoom ñoom ñoom yaa xam ñoom far ba nag. xam nga président munoo nekk ci parti. ay surtout te doo def erreur. ñun ñëpp dañoo def erreur. waaye bu ñu waxee ko yow da ngay dégg. bu ñu waxaatee ak yow da ngay nangu dégg. bul dem ba jàpp ni rek yow dara tëw la. Euh, bu ñu demee nag boo boo amee yenn posture yi nag day mel ni da ngay bëgg a mm. te ñëpp xam nañ ni ah xëy na euh, moom euh, xëy na tey li kon taxuñ jóg mooy yàq parti bi. ndax lan. parce que dégg ngeen muy waxee nu muy euh, acte yu muy posé euh, ne moom day réformer parti bi mais moom fan lañ ko falee pour mu war a réformer suñu parti mais loolu est-ce que dafa grave dafa grave xam nga c'est un lu ñuy wax acte séditieux li nga xam ne day tas sa parti hmm. ci loolu la jógoo la la nekkoon parce que boo jógee yow instance su parti doo ci dara hmm. amul benn fonction ci instance parti bokkul ci mais mais mais seen seen bi la bokk secrétariat exécutif national mu nga fa bokk bañ a am hmm. Euh, responsabilité particulière waaw ok war ba mu fay euh, wal boo fa nekkee ci coobare président moom mooy xool ndax da nga koy xelal ndax danga nga représenter structure wala da nga représenter institution nga nekk fa mais boo fa nekkee yow yow faluñu la pour nga jiital ñu mm. faluñu la pour nga xalaatal ñu nga xëy na yow yaa ngay réformer suñu parti. ah bu boobaa nag yaa ngi bëgg. mais yéen mu la woon xaar ba la. ah déedéet déedéet déedéet déedéet. surtout dinaa dinaa defagul boo gisee ñëw yàq sa kër. Mm. da koy génne. Mm. teg ko ne. Mm. doo bàyyi ba jaan bi dugg sa biir kër. ba commencé mattaate. di yàq ngay daw ngay daw di uti wàllu. bu naa man man da da boo ko séenee muy ñëw da ngay tëj sa bunt. mais man dama yàgg dégg ngeen ne Moustapha Diakhaté am. doole amul base kii kiiwul kon kon Moussa Diakhaté même bu xëy suba ne ne damay réformer APR te yéen ngeen jàpp ne euh, waa ji amul benn euh, poids plume la ci biir parti bi bàyyi mu bu dee dafay délire mu bàyyi ngeen bàyyi ko muy délire di dem man du sama jikko di juger nit ñi mm. am na représenté man yooyu duma ko mës a wax parce que dama jàpp ni nit bu ne am na la yàlla def ci moom mm. nit moom ëpp naa xet mm. comme nag nit ku ne am na la ñu def ci yow te mu nekk fa bu fa nekkee jàpp nañ am na lu mu doon indi donc man am naa respect ci li yàlla def ci moom. mais léegi yéen mu leen ko woon woo rek. mais non am na ci dox. mais woo nga woo nañ ko. man personnellement. Mm. xam man <laughs> gars yi xam nañ ma. Mm. ñoom ñoom samay xarit lañu. mais dama tëddoo noo xam ne jàpp naa ni kuy def yenn rek yaa ko tey. Mm. man du ma parparloo bu mu la woowee benn yoon ne jàmbaar jàpp naa la ngay def nii rafetul pare naa ci parce que jàpp naa ñun ñëpp toll nañu niveau de responsabilité boo xam ne yàlla may nañu xel ak xalaat ku nekk looy def rek dafa am lu tax nga koy def man tey bu ma jogoon ba am lu ma naqari ci parti bi ba jàpp ni parti bi xajatuma ci damay génn du dem ci presse di ko wax du ma dem fenn di taxawaalu du ma naan damay réformer parti damay dem defi. mais mais bon naa ah wuy ma pourquoi pourquoi quand même moom moom moom affecté leen ko balaa wu leen dafa teg ay att yoo xam ne jàpp nañ ni att yi euh, ci yàq suñu parti la jëm. Hmm. acte yu mu posé moo tax ñu jàpp ni ci yàq suñu parti la jëm moo tax ñu exclu ñu ndax ko directement mais que jàpp na xam ne ah comme ñan la non ma wax du wax mais ñooñu ñoom publicul moom parce que parce que euh, bu dee ñoom xam nga réunion nag dafa da ngay am bàmmeelu biir biir dafa xam la may bañ bën waa est-ce que tam peegoom nii rek naa dafa am ñeneen fekk musul am yeneen cas man xam nga du ma waxantu sincèrement jara jaru ma ko fi mhm. ok euh, nit nag da ngay am bàmmeelu biir mhm. du loo fekkee rek nettali mhm. dama lay wax ni du kaa mooñ taxul jóg ah beneen kaa yeneen kaa la woon yeneen kaa moom ci la bokk mais yeneen kaa ñu ngi foon étudier nañ leen ñooñu woowu leen woon ñooñu non woowuñu kenn parce ku nekk ku ñu xon xool sa kaa am nañ ay finde yu leer ne lii nga def nii lii nga def lii nga def lii nga def moom bosam nag lañ jàpp ni hmm. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla euh, euh, jàpp du mënuñu ko muñ dafa jëm ci yu yàqal sunu paa